Nej. Nej då. Nej då, Lisa. Ja, va? Mm. Nej, det får du det. may defal de damay génn damay dem ci salon bi defal sama bopp su ma jógee ci salon bi nag xam naa damay jaar sama kër yaay man sama yaay daf maa woowoon démb ne daf maa soxla te xaw ma lu may doyee waa mais mën nga dem seeti ko rek salon bi nga bàyyi ba suba parce que xam nga maa lay wax dëgg la kay waaye xam nga salon bi fee man damaa jëloon rendez-vous ba pare. Ah, léegi seen salon bi da ngeen bàyyi beneen yoon rek. Hmm. Mhm. mais bu fekkee tam sa kër yaay guddee woo fi mën nañu ànd rek suba ñu ne. sama yaay moom nii saa xaw ma nu may doy sama fanaan daal moo gën a wóor. Ah. waaw waaye lu si mënti am rek nga woo ma. Ah? waaw oh, dinaa wét. allo. oui Lisa ça va. ça va et toi ça va Alhamdoulilah. Euh, je dois passer te prendre parce que dañu war a dem médecin on a un rendez-vous. rendez-vous avec ce médecin. Ben écoute comme tu fais rien je passe te prendre comme ça. ok pas de ben, problème de toute façon je suis à la maison je fais rien. ah d'accord j'arrive le temps que tu te changes et tout ça d'accord. ok à tout de suite. bon Mifal, ça va mais ba fàtte une inauguration oui. Oui, mais demain à 16h. Moi, d'accord je ko ñoom ñoom ñoom que d'accord. on passe qu'elle même. ok je compte sur toi. allez bye. bisous. mais kat tu Puis, comment xamuñu woon bi a ñëw. Je ne ko kay peut-être ñu ngi bi. Allô, elle Je sent Surtout pour un début. Ça va, je ne pas un travail comme ça. 16h, D'accord, merci beaucoup. Allez, gros bisous, bye. Mais là, fille, fille, peut-être euh, Dis-moi, Lisa, tu Lisa, Seulement, euh, woo on a ne ma que dafa am rendez-vous ci suba donc après midi réglé mon agneau. après midi. Mm. d'accord. oui mais lui mon frère. Allô Maggie? ça va yaa ça va bien. Waouh inauguration ça m'a mis de malheur. d'accord on va voir un ñoom Aïcha dégg nga. ok merci bye. maaleykum salaam. ça va. ça va ça va. mais gis nga heure bu jot. embouteillage bi ma téye rek. ah non non non je suis pas d'accord soo teeloon yow embouteillage le la téye man ak Kati dañu teel a yow moo tax embouteillage téewul ñu. ah non Kati non moi je peux pas travailler comme ça mënuma liggéey non waaw su télon yow du gis embouteillage ah en plus premier jour de travail nga bëgg a tardé mais ça donne mauvaise impression. d'accord ok toogal ça va Mariama alors euh, ñun ñoo leen woowoon parce que suba dañu bugg ngeen teel a ñëw alors parce que man ak Kati déjà dañu coiffé wu et puis euh, dañu am suñu dizaine d'invités boo xam ne dañuy ñëw tamit pour ngeen coiffé leen loolu moo taxoon ñu woo leen euh, bi yow d'ailleurs ça yaa ngi fii mais keneen ba léegi ñëwul kooku moom duñ koy dàq ah Kati. mais yow Assane dell non non non Kati tu vois man je peux pas travailler comme ça man nous liggéey non parce que loolu le premier jour liggéey nga tardé c'est pas bien. voilà en grosso modo c'était ça pour ngeen jël seen ay précautions te xam demain ce sera une journée très chargée voilà ngeen mën teel a ñëw ñu teel a def liggéey bi pour mon pare d'accord parce que dernier jour bi la suba rek moo ñu d'accord alors Cathy

le plus beau jour de ma vie. Est-ce qu'on aurait vu le médecin, Defeco? fait tu étais là à mes côtés, as joué le rôle d'un bon mari et d'un bon père aussi. Non, mais c'est la moindre des choses, quand même. Je suis médecin bi médecin, yow voilà m'assurer que tout va bien c'est la moindre des choses que je dois faire quand même je dois assumer je te remercie parce que tu sais mon non, c'est si bañ faire avec les les nga genre euh, prends la voiture nga dem la boole ma keneen nga ne ma ah, loolu yëpp mënoon na la si nga def loolu lépp mais defoo non dama war a ànd ak yow t'accompagner t'assister être à tes côtés c'est la moindre des choses. donc je suis contente. Hein. plus euh, je pense que gis nga bébé bi ça va nous rapprocher davantage devenu ñu nous rapprocher rapprocher. Hmm? ah mais loolu la ñu doon ñaan yàlla non. <laughs> je t'imagine lan nga la tuuti Boubacar papa Alissa maman <laughs> tu peux que oui. daw de gauche à droite vraiment j'ai hâte. <laughs> tu sais euh, l'essentiel pour moi c'est que que tu sois bien dans ta tête dans ta dans ton corps. c'est l'essentiel bah, pour moi. tu es avec moi, es à mes côtés. sama gëstoo gis la tu m'as sonné. Le reste, dinaa que gérer Bonne année, tu sais. J'espère que tu ne Tu Tu ne continues. D'ailleurs, c'est déjà parti pour neuf mois et que je dois être là, t'accompagner, t'assister, t'aider, être à tes côtés. Donc, euh, c'est parti, ça ne va pas s'arrêter, t'inquiète. Ah, mais Fatina, demain mon rendez-vous après Salon Bas Mhm. Tu me déposes à la maison, mon change, je vois après madame. D'accord D'accord, t'inquiète pas. Moi, j'ai beaucoup de boulot, mais de toute façon, carré ne va pas. Mais j'espère que Fatéo, inauguration, c'est demain. Ah ouais Oui. Vous avez une l'inauguration Waouh. Ronald, n'est-ce hein pas Je suis pas Fatéo, mais de toute façon, c'est bon, hein. n'y a pas de souci. Il y a mieux, hein. Ronald, Ça dépend si j'ai le temps, hein. si je bosse pas. Ronaldo. quoi. Ah d'accord, mais si j'ai le temps, il y a un problème. D'accord Ok. waaw kay woote yàlla moom moo gën bu nit yow ñëw ah, man dafa fu ma jaaroo. man yàgg naa fi jóg. waa lii moo baax. yaa ma taxoon a jóg. nga ne fu ma demoon. ma ne loo di wax loo takk loo naan laa wuti woon ndey. yaa yow yaa yooyu ba léegi. ku wul nday ñu bëre daanu sa kaw ci lool lañ tollu di nday fi nga tollu ni da ngay sangu da ngay tak da ngay diw da ngay naan da ngay fanaan sax fof nday loy def keur lisa ba legi Ya li def keur lisa wax Bu bakkar mo ne naa ko jabaram mum la doon loolu rek la fay dafa fi la ah, ne waaw dara bu bakkar ne legi xolal duma ko sax yeggale gis nga boo fi joge da ngay ñibbi directement ma xol nak gis nga ya nga am keur lisa keneen la koy jëlali mais yow do fa delu do fa delu keur lisa Lisa la koy andil wala nga jëli ko bon d'accord Ça s'est bien passé. Bien passé. Mais ça t'a mon dans mère. Ma mère. Ouh, t'as maintenant trop. Dahla. Mais c'est quoi faire Ken qui mom ñewul sax d'ailleurs. Kenen qui dafa tardé ba. Ah non non non, il faut nga gérer lolu. Non non lolu. Man ni il faut nga wax ñom.

donc mm. il faut que demain nga teel a ñëw waaw waaw ñoo faut demain nga teel a comme ça ñu mun teel le tout mun a def suñu mise en place waaw waaw dina def loolu allo Chérie Coco, <laughs> ça va Oui, ça va, merci, alhamdulillah. Je voulais t'inviter à dîner ce soir. Ah, donc, ma invité Waouh, waouh.

ngay ana ak teg loxo. ngay boo koy koy ootal loolu nga koy ootalee moo koy ootal xanaa gisoo boo bëggee ootal bi tax du dangay wis mu ñëw defal lool ootal ko loo xam ne bu tegee rek loxo mu tarxiis nii rek la nag defal ba mu dëgër gis nga li xale yi naan ba mu baax yow doo ko baaxal danga koy dëgëral ñàppaara rek. mais je vais me préparer pour demain. vas me préparer pour demain kay. mais a quoi xam je invité ko. parce que ça va permettre marketing salon bi gën t'inquiète pas pouvons dina ñëw incha là. dinaa woo ñëpp. mais y a un petit souci parce que demain j'ai un rendez-vous. un rendez-vous. j'ai un rendez-vous demain matin à l'hôpital. mais il y a trop de rendez-vous. C'est vrai. Mais est-ce que tu pourras gérer Bien hein? sûr, bien sûr. Ça a juste coïncidé. En plus, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. En plus, tu sais que là, c'est la santé. Alors la santé passe avant tout. Je ne suis pas contre, mais si ce n'est pas la santé, c'est ton mari, tu vois, il y a... D'ailleurs, je vais gérer la situation, ah, t'inquiète même pas. Sérieuse commence, donc il faut essayer de gérer ça, canaliser les D'accord. Gérer la situation. N'est-ce pas que demain matin, il a une bob. Moi, je peux passer le matin. Madame, ça me bob, madame, ça me rendez-vous. Après, s'il le faut, je vais direct. D'accord Ok. Hein? Ok, ça va. Mais sinon, euh, c'est quoi Fauzi Parce que taille, elles m'ont vraiment énervé. En plus, premier jour, c'était au mauvais signe. Ah, Premier jour, je ne vais pas tarder à, y aller, à rentrer. Déjà oui. De toute façon, demain, Inch'Allah, le matin, nous d'accord? Très tôt, hein okay. D'accord. Ok. Cassie euh, Rendez-vous, mais il y Wow, wow. rendez-vous de Fabri, tu vois quoi, faisait tard de taille, je comprends pas. Dès que je suis comprendre pourquoi. En tout cas. Ah, vraiment, moi, je peux pas bosser comme ça, limon. Ça commence mal. bàjjen. waaw ah Bakhayokho Bakhayokho fi nga génn nooy nag waaw Bakhayokho yow li nga sañse gis nga ko. weex ci suuf bële ci biir jaarale ci rouge drapeau France ngo Bakhayokho xanaa li ba nga seeti jee sa maam nga ko wut ndax drapeau France la moom. non bàjjen. ah fii la Sénégal. Sénégal kon cher na non cherul. tu sais, nous, les petits-fils de président, mhm. dans tous les pays du monde, mhm. on nous donne des habits. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas ça. Non, je veux des trucs africains simples et moins chers. Tu vois ça là mhm. Celui qui a fait ça là, c'est un de mes grands. Barabé. Barabé Barabé. Son magasin est ici. First class. Première classe. Première classe. kii day jiitu gaañi. moins cher puis baara bee lii mu la defal poche yi mel na ay bët. noo non deux pièces ku ko fi solati ñu dóor la <laughs> deux pièces moom ku ko fi solati ñu dóor la yaa ko moom. ça te va bul solati leen <laughs> waaye ku mën te bawoo lu yàqu yow la waaye ku mën te defoot lu yàqu yow a ah nii rek la. dëgg la rek ma ñëw may la nga naan sax lu. non waaye dafa xaw a tàng. non merci Badiane Badiane Badiane. ndey de moom 18h pare na bu yàgg di la xaar. xam naa ah, léegi moo rek yéen. waaw waaw dëgg la dëgg la ah yow ku la am jël ku la ñàkk wuti la <laughs> yow moom lu rafet rek laa war di sol. Eh, ñëpp a ngi xippi seen bët di ma xool kon kay lu rafet rek laa war a sol. ku ne bëgg nag nekk sa borom. waaw ah ndey yaa def nii. ndey yow xam nga la soleil se lève à l'est et se couche ndey lii nga tajute liisal ko ni ma ko bëggee. ndey nag xam nga ne le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ah macha allah def nga ba mu baax. baax na ni torop torop torop torop nag baaxul sax ndànk. Hmm. ah macha allah. ba xëy ñu ñu dem. waaw ñu dem waaw ah, dañuy dem. waaw waaw. Eh, fooy dem. ah fu ma jëm. fan nga ànd ak yéen ñun ñett lañu dem. yéen léegi may surveiller yow tamit. surveiller yow ma la de surveiller yow ma la benn yoon damay raccompagner la. non bàyyi leen graw. ndey maay sa gàllaaj yow tam. graw graw yow kii éviter wu ma nga bëgg maa éviter. <laughs> nañu dem. bàyyi dem. nañ dem seen ginnaaw. <laughs> ah yow tam lu neex li nga bëgg ma kaa xëy. Eh, man moom damay topp seen ginnaaw rek lu leen neex def leen maa ngi seen ginnaaw rek moom. <laughs> On se retrouve tous dans un e café.